Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Boki mbokki julit yi seen mbokk Modou Diop Thiat directeur Baol media nek technicien mo len di nuy di len jaar euh, di am témoignage bo xamni mi ngi koy def rek ci gor yalla gu mak ku ñuy wax euh, Cheikh Samba Diallo di di am xam-xam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 fim tol ni nak Senegal duñu duñu xam nit duñu jema geussu nit duñu jema deglu nit ki li wax mais dañuy baye ba nit ki dem ñuy ñu naan ñuy reccu ta fekk lam doon def ak nam ko mane won bam fi nek ah mi ko doon def lepp di ñëri kon vraiment Senegal ñak na kilifa gu mag deug yalla li di ak ak ak tit la wara don sax ci ci askan yeb ci Sénégal yeb ah ak tit la wara don dal ndax euh, borom xam-xam yu mel ni senu dundu duñu duñ len baye xel ba nu jóge fii nii rek duñu baye mukk mukk xel ta fim toll man.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 musicien bi taxul may wax mais borom xam-xam yi kangam yi fi baye ko ñoo ñoma tital ta ñun ndawi léegi wuñ xel dara dara dara dara lulul naka lañ mëna def ba am dërëm ku ci dugg ci métier sax da ngay tan métier bi gëna gaaw pour nga mëna am xaaliss mais xam-xam dal kenn gëstootu ko legi nak Sénégal tollu fo xamné mi ngi ñak ay borom xam xam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 buñu xolé sax élection yi dëng ni mu défé discours ne ay biye mak man adina mak fuk yoon luma ma koy doyee delu waxat ne soxlawuma kenn sax téw fa ku né wona ma way soxluma kenn ñew lool jafé jafe na ci sëriñ ci dé vraiment man bi ko yégué ak ni ma amoon yéene gisante ak mom ndax dama yag tek ay waxtanam fi ci radio bi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 mom de defon na ta fekk bobo li walaf di wax rek lula la rek do ko doo ko jéem a mais da ngay tan la la sori ah xamna mom wax ndax euh, euh, sama xol dafa dafa dafa toy dal ndax deug yalla dal doyna war doyna war na suñ borom dal ñing koy talal ay loxo mu bayil ñu fi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 vraiment cheikh bi euh, xol yi toy nañ euh, yal na la suñu borom xare aljanna tayit nak ah man nañ wax ne suñu xel dal na ndax gis nañ ne wala itam da nañ deglu ne sam yep yalla la ak yonent bi te bokku na ci lima gëna neex ci say waxtaan moy day tege ci xam-xam ba pare du am ben par lo, li gën jafé jafe ci jamono ji ndax ñaari jamono ji kep kuy wax même bu dé xam am nga xam-xam-xam sax yaangi gëna gën fa nga né di sikkel ñenen wala sax ngay araamal daanaka ñenen mais mom bu daan wax xam-xam la bu daan wax Bamba bu daan wax ci Baye ñass bu daan wax ci mam limamulay bu daan wax ci tiwawon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 ñuy ñu ñu daal ñu ngi lay ñaanal bu baax ñun de wax deug yalla yag na ñew genan say waxtaan yag nañ ko tek ci suñu radio yag nañ ko tek ci suñu site nit ñi di ñu wo fu ne ñu ngi doon ñaan itam yalla dimbalé ñu ba benn bis ñu ak yow li ni la ko suñu borom bëggee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 ñu lay ñaanal baax suñu borom yërëm la taxare la aljana ah, suñu borom mom lu mu def rek da gën xëy li mu def moy li gën ah kenn mënu si dara jere ngeen jëf seen mbokk seen xarit Modou Diop ah, directeur Baol media ñu fi Touba mbacke ah di sant itam mboolem kilifa yi rek di ñaan rek ci seenu mbax ak seeni ñaan suñ borom jële fi mbass mi xew ci réew mi bañu ñu wat ci suñu sago mën liggéey yal nako suñ yal nako borom def am nako man nako tay ko tey suñ dëkk bi wala suñu réew mi kilifa yi fi ne liggéey lan seen borom lo xamne ne ah japp mané borom dinañu toroxal wala dinañu sagane